noonu la noonu la. ñu baal ak askan wi nga nuyoo ak ñoom. Ah, naa la démb fan la woon. démb. Eh. huis ah. <laughs> waaw huis clos waaw ah c'est vrai que temps war nañu nga mën def huis clos nag. huis clos waaw parce que temps ci reconfiguration. la daal. <laughs> <laughs> Eh. lañ nekkoon démb. waaw. huis clos moom comme ni ngeen ko xamee rek. huis clos moom kenn du kenn kenn après naa la kii waaw kenn du wax. kenn du ko wax ci rajo ak télé. voilà très bien c'est ça. nga gars yi ñoom dañoo aay. <laughs> dañoo jóg te tas ay coalition <laughs> ah léegi day coalition jël nañu coalition jël nañ parti mouvement yi ci des de. mouvement citoyen yi. ma lambe feneen. ah foofu du baax. ma lambe feneen. <laughs> ah. le messie de la politique. c'est que problème bi mooy lan ngay wax waa koñ ba problème bi loolu la. la nga ko waa koñ. jërëjëf <laughs> eh. <laughs> déggoo ma de. yow de moom xaw maanaam boo demee ba toog buntu ko ñoom Biége ja yi wër la yow lan nga leen di wax. ah looloo jàll wala nga dem toog ko ñoom Aline Mbaye Moussa Mbaye. une bonne question grand place laa lay wax nii de. une bonne waaw wala grand place boo fële euh, euh, croisement Sam. Ah, yow de moom xaw ma looy wax waa koñ boobu. wala nga dem toog buntu ko ñoom Père Diaw. yii day métti. non non c'est que. day diis. déglu ñi leen di déglu ñi leen di déglu. Hmm. ñi leen di déglu ñoom la. mais bu doon boo commencé daan naa da ngay argumenté yet ya daw gars yi dootuñ mën xoolal dootuñ ñemeeti dem koñ ba pour wax leen li xew. waaw nga dégg de déggoo ma de. waaw nga dégg de. foo ne non c'est-à-dire rek yet ya naaw bërtët bërtët xoolal nga jël sa oto. doo xam foo koy <laughs> doo xam foo koy nekkale. waaw nga dégg de mais xam nga jàpp ay nit lu tolloog juróomi atu yàlla. gëmul leen benn mbir xëy benn jour ne leen bon. ay lan nga leen di wax. waaw léegi dama bëggoon ñu waxtaan lu jëmale réew mi kanam patati patata yow. day mel ni ma ne nit ñaa ngi fii di jël seeni alal di ko dimbali nit ñi te ñu état. gaa waaw wax dëgg yàlla. déggoo ma de. c'est clair waaw. wala mooy géej gi am na ndox. waaye li nga am ak as néew. <laughs> Eh. nga jàppale ci ñi nga xam ne moom la sa doole tolloo. comme ni Bougane defoon ci mbëndam. waaw waaw. jël say enveloppe bari naa bëriwul. jël say moto pom nga def geste yéegi ne leen maa leen ko dimbalee wala leen ginnaaw ñibbi muy social école yi te du mu ngi nii di ubbi waaw ñi mën waaw nañ jënd ay kay fourniture waaw c'est clair dem si école yi may man daal politique boobu laa jarul xaar maire déedéet jarul xaar ministre nii état déedéet déedéet yaa ngi fayee ko weeru dee waaw nee nga yow am nga ay yéene wala ambition sa koñ waaw bëgg nga tam jàppale waa koñ bi waaw mais defal ah. ay. waaye bu maire ba ñëwulee man amee ay dara ma ànd ak moom ñu taal caméra yi lii ak lii ak lii ak eh. rek man du ma mën a defal suñu waagoñ. waa waaw day met métti. yëfi caaxaan ak yëfi dof. yat rek. dëgg <laughs> waaw yat gi moom dina diis de. <laughs> yat nit ñi moom dañuy toog di xaar ba kenn ñëw suñ ko naan ñu sàmm ko di a ginaar ak i nenam. ah loolu moom mënut ñàkk nag monsieur le maire. foog gaa yi si leen. waaw acca bisimilah. consulter leen. <laughs> invité leen. waaye non man. Euh, kaay yee ñëwul. ay ñu dem ci yéen a kaay tribune. waaw talaatay démb ji rew talaatay deer déedéet kay. poto làmp yi nga xam ni. Mhm. en ciment la. Mhm. ñoo daanu xaar yàlla Grand Yoff ñaari xale ñàkk ci seenu bakkan am ci koo xam ni it dafa am ay gaañu gaañu miti miti. foroti nañ néew ca Soumbédioune Podor ñett réer nañ fa. cey. bokk na ca benn vétérinaire. Sénégal. Njaaréem la même chose. Mm. démb am na quartier yoo xam ne amuñu ndox. ah man moo tax Mamadou Lamine Diallo ne gis nga nguuru Macky gi hmm. ay tan lañ yoo xam ne dañuy nax rek ay prédateurs lañu. caxa caxatee suñu alal ak ah, suñu askan. miti na li yëpp li nga fi taux de croissance bi makki di wax. Hmm. ci tribune ba léegi nii le acca mbër ñëwul ci tribune mi ngi nii gis nga ko. Hmm. naxaate rek la. Macky Sall nangu na ne instant bi war nañoo fay loo xam ne fayuñ dañ ko war a fay ay impayés. toll nañ trois cent cinquante milliards. bor bi nekkatul léegi bor. surendettement romb na koy wéy neuf mille milliards dix mille milliards. romb na romb na lépp. coowal timis ak takkusaan dégg astafurla coowal Frank timis ma naan timis ak takkusaan. waaw coowal Frank timis. <laughs> ndekete opposition bi dafa am ñoo xam ne dañoo nekkoon ci biir opposition bi doon jàppale Macky Sall ci xeexu timis bi. waa opposition. pétrole bi. ngir affaire bi nëpp nëppal fay mais coowal pétrole da nga dégg di ko fi wax. xanaa ñun ñoo ci débrouillé sax naan suul gaz du ko teree xeeñ déggoo ma de. léegi nag ñooñu nag. Hmm. tey ñoom ñoo séddu. baadu dañuy am pourcentage. ah gisoo li xew nii. ñëwal yow ana ki ci topp kanam. <laughs> boo kar parti démocratique sénégalais la fidèle waaw le quotidien yéen kaay ñëw ak ci. Hmm. waaw détournement de suffrage la. moo jaxase carte gi yëpp yëpp yëpp yëpp kenn musul gis lu mel ni ana ñi boteloon idi ne Macky na fi jóge ah. ana ñan ñoo boteloon idi ne Macky na fi jóge li ñuy wax waa koñ ba <laughs> léegi idée dem tekki Macky li ñuy wax waa koñ ba <laughs> dama ne léegi idée dem fekki Macky waaw léegi pour wax ji fin waaw wallaay wallaay le témoin yéen a kaay. Ah! le témoin yéen a kaay ñëw hmm. bu ñu demee ba gis nga ndóol gi fi mu nekk nii xanaa xamoon ndóol gi moom mooy suuxat. Barça ak Barsax oh. moo koy suuxat de. ah oui parce que gone yi nekk ca banlieue ba. nu mu gën a soree gën a baax. ndool gee tax ba yàlla créé jakartaay. jakartaay waaw pour gone. waaw ñii nii la de sur quotidien ñëw ak ñun ci. Mm-hmm. xoolal coowal immigration clandestine. Mm-hmm. milliards yi ñu ci wax. Mm-hmm. mais résultat yi tekkiwul dara. échec la moo tax Mignane Diouf ne tukki bi il faut ñu yombal ko. ak dut baaraam ci waaw waaw def ay actes yoo xam ni investissement. ak ay parole wax ak nit ñi xale yi. mi ngi nii c'est clair. waaw ah, kay waay. dégg le. source A. waaw waaw kay. le quotidien source A. ñi fi nekkoon gënoon a faros au régime. Mm. Macky dafa yëkkati carotte. Macky Sall. daa yëkkati carotte. carotte waaw. yëkkati yëkkati yëkkati kii yëkkati carotte yëkkati yat wi. Ah. ñaar yi la yëkkati de. Mm. mais xoolal ñi nga xam ne ñoo gënoon a sadik di ko attaqué. Mm-hmm. mais ñoo ñëpp tey ñoom ñoo dem. maître Souleymane Ndéné Ndiaye. kenn mësul gis lu mel nii. maître Ousmane Ngom. Modou Diagne Fada. kenn mosul gis lu mel. déggoo ma de Idrissa Seck maître El Hadji Amadou Sall ay ñoom Oumar Sarr. Hmm. mais ponkalu PDS yi laa lay wax nii gars yi ko doon attaqué dëgg dëgg dëgg ñoo ko ñoo ko fekk. mais. ah est te ma tamit nekkul le misi. le misi dama xamul dama xamul. le soleil yéen kaay ñëw ak ñun ci. Eh. yéen a Macky Sall yu bees ngi nii ak armée bi. Hmm. démb nag xam nga journée woo. armée bi la waaw journée armée bi la waaw. voilà dégg nga nouvelle ambition Macky ngi noonu. c'est clair réew mi réew mi côté hmm. Ablaye Wade. génn na ca pataaram nga ni mhm. ko coro saar ah, waaw na coro saar alkalima sàmm foofu muy wax nag góor gi nag nam nañu ko fa muy wax bi boo waxee ren balaa waxati déwén <laughs> confinement bi góor gi il faut ma seet wallaay wallaay borom jët privé baa ngi nii bu ñu fi bàyyi eh, moo ñu xamal nag lan waaw sept merveilles yaa ngi nii grand théâtre a ngi nii waaw ku ko bañ di dee de hmm. bu dee lum tabax. na nu rek. lum tabax. nga daaneel naan na koy tabaxaat. barki am na ñu fi am vingt ñu réaliser dara. ah réaliser na nag def na de. yàlla lim de maam def na de. ah, ah góor góor gi def na de te defantuwul nag. <laughs> Ablaye Wade ci boppam. Eh. ci gouvernement wu. Mm-hmm. bii taxaw nii. Mm. nee na affaire waxaale la mi ngi nii. waaw waaw mel ni kër Sëfëg Jaay. marchandage politicien la. waaw waaw. intérêt personnel. dafa mel ni nag loolu. ay waxaale secret yoo xam ni kenn yëgul tënul. di waxtaan ay weer. ay weer kenn yëgu la dil la <laughs> lii moo tax Ablaye Wade ne nañ leen taxawal benn large front waaw pour jàkkaarloog Macky ah, da ko yéex a def acca ah, ñëwal ñëwal ñëwal ñu dem le quotidien le quotidien Souleymane Teliko conseil de discipline ba waaw le 20 novembre lay wujj à la barre acca acca acca acca acca MD la loxo bi bar waaw observateur waaw kay Mimi Touré ngi nii eh Mimi Mimi fu mu ne moom démb ma ko dab ah démbam ndeysaan. journal bi nee na ay Karim Wade Khalifa Sall. gis nga ko. elle était attaqué. attaque politique yi dégg nga wàllum justice bi. léegi daf fi nekk dafa mel ni boule bi dafa tourné ci moom. waaw waaw waaw société civile nee nañ leen reddition des comptes. ba pare gars koy attaqué politiquement. ak yorinam tamit. gestion te conseil économique. mimi na assumé rek. ah, ah mimi ngi ñëw. ah <laughs> mimi acca acca lii quotidien lii quotidien ñëw ñun ci. stratégie rek pour imposer fi nit ñi un troisième mandat. Ah, waaw. mais troisième mandat bi da ngay demee troisième moo mënu fi ah, nga loolu loolu yaakaar. dañ ko fiy tere. dañ ko fiy tere moos. ñii ànd ak moom yëpp. <laughs> Eh. ñoo xeex troisième mandat. man léegi looloo ma jaaxal. waaye nag dañ ko fiy tere. Ah, MD Aïcha looloo xam bar libération mooy <laughs> libération ñëw gis nga ko xale bi. Eh. gis nga ko nii. xale baa ngi nii. gis nga Doudou Faye mii. waaw papa Mamadou Lamine Faye la tudd. xale bi amul sa fukki at ak ñeent. Mhm. papaam jël ko dugal ko ci gaal yi. oh pour mu dem Espagne. oh ci biir géej gi ñu jël ko sànni ko ci biir ndox mi. oh mais papa ji rek teg nañ ko loxo. chata. acca Amadou Ba Amadou Ba nag moom doom ji gagné na ko Xaadim Ba. Locafrique moom la journal bi doon. waaw évidence yéen kaay ñëw ak ci immigration clandestine. ba léegi. pale ba day jafe la patt la ñu def. ba patt gi moo jaaxal ñëpp nag. patt gee jaaxal ñëpp. chette. les écoles yéen a moo tax internautes yi. Uh-huh. dañuy décréter journée de deuil nationale vendredi. Ah, ah mais waaw waaw. dégg nga loolu. waaw waaw Ablaye Wade ngi nii ci suuf. Mm. waxaale politique bi. L'As Quotidien L'As Quotidien ñëw ak ñun ci Ablaye Wade ba léegi ànd bi Idrissa Seck ànd. Mm. ak euh, ak ak ak kii ak Macky. Mm. da koo sip de. Mm-hmm. waa Jure jëf ji ñaaw lañ def Idrissa Seck. déedéet kay. Jure. xaw ma lan information xaw ma lan républicain <laughs> seen loolu <laughs> journal bi nee na photo yi ngeen démb Idriss Seck dañ doon wili pande Idriss wuyu ma eh? ay photo yu ndong ay déception ay photo yu digg ginnaaw <laughs> ak xoolal ma photo yi wane ne Idi léegi mi ngi ci ginnaaw Macky ay waay ay xoolal ay position bien calculée dañoo déception dañoo dañ leen décevoir pour ko ay waay moo tax laa séene kaay nañu mm-hmm. Malick Gakou bi mu yeggee jidde caaroy kaw Gakou yow wax nga dëgg waaw daw bi ñu demuñu. demuñu demuñu <laughs> demuñu demuñu. Malick Gakou. nee nañ demuñu. ah déglul gaañi nag dégg mais part mais parti bi sax ñooñu la war a déglu. ah wallaay parti bi kay militant yi lay déglu moom. ah <laughs> parti militant lay déglu de. parti bi ñu lay déglu. nee nañ demuñu daal Malick il faut tenir euh, foog ñu tenir loolu en compte critique. Ah. gaa yi nee nañ ko demuñu parce que ah. li sa Seck def ak Macky Sall. Mm. nekkul dara lu complot. ah. ndaw yi bokk grand parti nekk ji da jaaroy kaw nee nañ ko Idrissa li mu def nii ak Macky du dara. complot point te yow doo complot kat yow Malick Gakou. waaw ah, waaw moo tax demu ñu demu ñu. demu ñu. li ma jaaxal waaye nee nañ moo dox sëy bi nag. sëy ba. ah Macky non non non yow yow damaa dégg ne maa ngi ci garab dox de la. ah Idriss Seck li magum jëm. <laughs> Idriss Seck da koo da mag ba di ko doxal ay ngoro. ah man de pour man. ngoro gi Malick kay ñoo gisante bëggante seen bëggante bopp. takkante ndey di kay <laughs> ànd dox dox bi. barke yonent bi. <laughs> jàkkaarloog armée bi de mu def ba mbaax takk seen i masque. waaw. Malick kay nañ ko ci cëppee. retrouver retrouver officiel yi de Idi léegi ndeysaan. ba mu dem ma nga ci loge ah. ba Malick dem. lu muy wax waa koñ bëgg <laughs> ay Malick si Malick sagal ñu rek. koñ ba koñ koñ ba daal. xam naa moom kay bu demee sax xam man maa fay ne di wax. gaañ ñu ñu def Thiès bëgguñu ñu def ko koñ ba daal. waaw bëgguma ñu def ko koñ ba. naan ñu ay nitu géejuwaay. waaw waaw waa géejuwaay. waaw ñun ke ñun moom ñun moom ñun moom deux mille deux mille quatorze. ba léegi ni ñu dund. billaahi. daa doy sëkk sëkk sëkk bu ñu yokkal dara sëkk sëkk ñun koy xoolal mm. grand bu ñu ci doolil te ñun moom lu ñu ci doolil ñu faatu nitu géej waaye moom bëgguñu koo dégg non non non baax na baax na <laughs> baax ay léegi am na waaw lé lé lé enquête yéen gis nga ko uh-huh. dialogue national confusion nationale tas kenn xamul lan la billaay jeexul demul dikkul waaw yow acca ko mu jigi kan la kay Ablaye Wade ngi nii mm. Ablaye Wade nee na mais nee na Idriss Seck li mu def. Hmm. day mandargaal rek. waaw. complot. waaw deal politique li ñu doon wax. c'est clair kese te Ablaye Wade nee na gis nga Antoine Diome mii. Hmm. mais duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. waaw magistrat boo xam ne bu ñu nee toogal nga toog. jógal nga jóg kooku kooku kooku ba mu bàyyee tëddee njaaxaanaay kenn xamul kañ. ah récuser nañ ko de. Antoine Diome mii. loolu du jàmm moom day tàmbali ko liggéeyam bii. làq <laughs> na suuf de. deemu ñu deemu ñu deemu ñu. gàkku de xanaa dina dégg dina déglu moom. dina ah. dina déglu dégg. waaw ñun nag moom géejuwaay lu na am. dégg dem de xaw ma di. <laughs> waaw ba lan la di wax. <laughs> nañu dimbali rek nañu dimbali rek ay jëm monsieur le maire. kon xam naa ne ñi waa Thiès de moom doyal nañu sëkk fu mu nekk. li fi Thiès dégg ci atum ren Thiès de dee leen sekk bu ko ci dara ñun nag dañ faa am soxna moo tax mënuñu. waaw déet bu ci sore kon. déet man sax léegi dama di nitu Thiès. ah waaw waaw kon <laughs> mënuñu Thiès sore. man kay fi mu ne nii ay jë la revue de ñu koy ko rajo bi. waaw waaw 89.7. waaw ak tës bi. waaw ci kanam incha allah. lay doon. jërëjëf monsieur le maire mbokk yi léegi léegi ñu tàmbeeg yéen ci xibaar ci tënk.